alaikum suma gay suma mbokay ah yeen iya, ñepp nuyu na leen bu baaxa a baax ah di leen ziar tey nag du ma mom home mari Marie Bachir Posh Events by mari bashir laay ñuy bit yaa ngi tey dina am event bu ma dem host suñ paak bi suma benn niis moy am birthday so ma ko dem hostali birthday am bi so mel ko indi ko rek. yeah so mel pour ma walé ko rek wan leen tay nak du home mari Marie Bachir tey Posh Events la waaw kon. toppal leen ma ñu dem su ko defee ñu seet suñ am am suñ bagage yi si paak bi fone bu ñu am yëpp dinañ ko ànd ak yéen nee leen leen suma little helpers yeeg maa dimbale so léegi ñu set up suñ si dafa tey nag it's not a great great great great weather waaye at least tawut rek so it's fine so dinañ seet luñ fi mën a create rek something loo xam ne is fun then yeah Nene xool ma high five Nene high five kaay high five kaay suñ set up bee waaye ngelaw bi luñ set up bi setti teg fële yàlla baax am suñ juices mango lassi ginger sandwiches pour xale yi am suñ food salad couple of things ebe be ngey ñew ak grill gi nene nene ñom bibi aisha nene bibi aisha say hello jaaj ko sal don na libu ka de naka ñoo cokomto kay dem jëli ebe bi nga taxoon may cokomto amul ma ne ma gisee bi ma ne ana sama xarit sa xarit bi waa nga la a ceeñ bi mu ne mu ne Adam mu ne a ceeñ mag <laughs> <laughs> juus bi juus bi mango laas bi maintenant ceeñ tur bi tuddee ko Mati <laughs> loolu laa bëgg a Adam a ngi nii hello waaw waaw baf set bi nii aca nañ dem ma jël la moo gën a rafet ah <laughs> xool leen baat baat baat dafa ñëw baat gaal yee yee yee yee yee <laughs> jaañ naa rek ni kii mooy yaay borom baas bi waaw aca ñu dem ñu dem ñu dem ne ah, nice it's nice ba déggal jaay fa mbokk gémmiñam bi girl, Nene, nice. Yeah. Yeah. What happened to barbecue sauce? Huh? Wah, nara harma nyu. Nene, bande girl, Nene. Eh eh eh, eh ah bande girl tamit yow tamit Nene tam nekk bande girl taxaw tamit nga bëgg a jël bu kay ñaari loxo nag. <laughs> Nene. nee na xoolal fii. nee na uyu yee ana nenne. nenne nenne. cheers. weer bi daal tey moo ñu ko def suñu setee rek mu yóbbu suñu setee rek ngalaw bi waaye manage nañ. Agnata sila Inda Haw li ma koy ko defee sa anti Setan seetaan ko YouTube bi ñu xam ne Agnata fu nekk la ah ah mas. na ah fii Dobney Fields yeah D A D A U B a y. waay xale bu ma lo si YouTube bi D A U B <laughs> N E Y No Agnata Pusa, pusa. si kanam yow sa bàjjen su léegi duñ la no suma xale yi simil jacket bi. waaw it's the part of your sense. yaa ngay xamloo sense inchallah gën a xam sense. non te sense nga Mariam aca kaay. nataalu lii vidéo la du nataal vidéo la. vidéo la pour soo baajee gis la ak ñoom ak ñoom ak ñoom ah, ah, am. Oh, ah, sumajang hai mashallah wai. Ah, Aminata? Aminata munga Aminata aja. Eh, mana virus? Ada virus. Ayo takai. Ada kai sahau. Ada kai leka ebe, ebe baaga ne. Dem len ngeen ebe. Anca. Suma xale ñu ni waay. Sama eta bu mu ne

snap de boo gisee ma snap bu leen bu fii de na leen gis kaw rek bu leen snap gis suuf. waaw jaay si wàllum boyal bi. maa nekk si wàllum boyal. <laughs> laka bi. anti Ema ngi ne la ñëw na xaaral ma dem welcome ko. anti Ema welcome. billaay dama sa waaru sax. waa anti Ema li nga seen seen lan la. a fal ni rek nga def ni rek yeen so leen invité nit ñi dañu mag yi mag yi dañ war a defaru ba baax parce que yéen óolul óoluwuma leen ah way def way ñun keeg lin la indi ay sol sol ay tibé ay waa xam nga mu lay sol sol waya nga sa sorobu bu ba i sotan kay xam nga baaxul pour sot sax sobi solees sobi soles ah, waa gis nga ñun waa gis nga ah, raas meena bi de ah. waa yaa ngi nice Ghana. Ni yow yëpp laay jël duma bàyyi dara. ah anti Emma kañ ñim sensé. anti Emma gis nga gudd li fi ne boo da def da nga def li fi ne dafa bu ne te nga gis Adam Adam mu ngi laa oo tooñ la ma def. yow la ñoo jàppale mu toll la di nga moom mënuloo ko lekk yeng. ah defal la ebe nga lekk xool kii du ami de du moom. ok jéem balaa moo ñëw. ndeysaan ah waaw ah. <laughs> waaw. ancal kii la di Mariam la di. waaye ñu ne waaye li fi amul bi yoon aso bi loo am sol da nekk ci yas neexee yaa waaye doo fa sant ay sant yu ko koy wóor fa nekk ma ne bi bi am am sol ba nga wax sol sol bi bi Why be halay leg afta dama ko jokki ma tang you want chicken? mama Musa. Ini asa. Fosran bu ma seton round. Anak chop si chop si jehna cof si foos bi dem am ci def di def waaye léeg-léeg gis ngeen suñ criir bi nii dañ ko defee daal ba ma dama sonn na Aja jangan defal dia mama deh. Money. Yes. Anggale ya, ini lekong. Ini lekong. Anggale, bos anggale. Anaknya?

You want meat? Hmm? Love for? Palace. Say hello, daddy. Say hello, daddy. Say hello, daddy. Say hello, daddy first. Say hello, daddy. Hello, daddy. No, no. Say hello, daddy first. Yeah. <laughs> yeah.

su ma si su ma si sinin sol bi la si sinin bi ah yow tamit laay lii laa man su si sinin rek laa jël jaay ah,

dugal nañ di. noo ko yaa ngi nice. maa ngi nice. léegi kii su ma jigéen bi. soo danga connecté wu nii. nee ne nee ne taawal fii taawal fii.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 side bu mag bi si side xam nga dafa ña dafa am two sides am naka nooy doxee wa déedéet déedéet a ah, déedéet tàllala street de tàllala street rek aca neene kaay dog ko kaay waaw dugal fu ne dañ ñu gis aca neene aca neene xaaral ah aca am aca am waa xaaral xaaral xaaral ko nii toog aca dogal anca anca kay dimbale ko teel lii anca am dimbale ko te ndaxam dama fàtte paaka bi soo nam dog de defal nii defal nii nii waaw kii bu doyee ko waaw yee Nene, are you one? Are you one? No? Are you two? Are you three? Yeah! Yen miss yen miss yen lu miss yen lu Anak ana ami das ami ami ami ami ami wa ami nana nai seeni ami nana ngaji aksa ai sehat. ay sihat problem. Amak di lo ñu lif lool sibi sibi ara <laughs> sama jangay baada ka socc sorry massa alaaji alaaji alaaji wa joxal boobu wa su ma ko recordé kombe su ko defee a xam ne lépp ko defee ma wax ne ami kaa jëlal xale yi seen yoos kaa jox gaay seen pati baag man nag suma teraanga gaa ngi anamu lii <laughs> ak lan kombe ak <laughs> keeg bi yow yaa ko def. sa dëkk glace li moom ñoom guddi lañ ñëw guddi. yi joxal <laughs> di. ami last minute ami kaay. lépp famille. ami kaay ami kaay. añ ana ana Mariam ma ana am kaay. joxal Aminata ah waa joxal jëlal la sa xale yi.

nga ñoo nekk di am baat di rek may gën a ñëw rek di leen di leen di leen di leen saaf incha allah kon baax na bye. waaw ma ne ko ne suma gaañ yi ah ma ne ko lii nag foog ma share ko ak suma gaañ yi nag pour wan leen ne dañ dee defar suñu wedding treat box yi nii gis ngeen lii ma ne ko ne lii is am um, wedding treat box la ba pare ñu ko fill in with um, celebration sweets as well parce que ku ne wedding moom na celebration as well so gis ngeen suñu am um, dress be ngi lii mooy nag suñu wedding dress bi lii mooy nag suñu wedding am um, am um, shoot be. so gis ngeen together Wow. so li lañ defaral kii lu rafet li gis ngeen mu ngi nii ñu def seen tour macha this is nice gis ngeen lii dafa rafet ci table table boo ko teg rek suñ namba bee ngi nii ma zoom ko waaw dañ dee defar yii nii yëpp mhm, lii nii nag ah suma am ku ko am dañ ko présent lifin bi bride bi bride bi sax xamul ne sax ñu ngi ko defaral lii xam nga lii nii bride boo ko présent moom macha allah macha allah so mu ngi am yeneen tam fi leen couple Pasuma guy gis ngeen lii ne is another cocomelon party ma is another cocomelon party and also princess party am ñoom am cocomelon bi mom my brother bi and then the princess for my sister bi and then we personalize and then from scratch suma party li mako ko personalize from scratch all the way down waaye yep, tamit maa ko um, personalize ni so gis ngeen bi party bag gonna be sweet looking bi la sweet box am yi la gis ngeen mu ngi nii yi la pochette size just couple of them yeah topo team defal ko popcorn as well personalisal ko bi tamit suñ jànxa bi moom tam dapat defaral ko nii gis ngeen personalisal ko ko bam nice gis ngeen ami ma def fa turam so ma personalise from scratch di leen wax ne soo leen bëggee rek loo dafa unique ah ñu defal leen lu unique loo xam ne is very nice as well ñu ànd ak seen team sweet ci tamit gis ngeen tamit moom tam ma defaral ko suite sami ak popcorn sami ñi ni yap gis ngeen ba pare ñu am seen set si léegi nga plate set si lañ ñu am tam seen outfit si am daddy mommy birthday boy bi ah and then the sister and then sister macha allah ñu dinañ pati you ya, and fii nii another Cocomelon set plate as well and then ñu personalize al tamit te li wax ne lii yëpp Gambia la dem ni all the way wow, it's going all the way to the Gambia inshallah allah rabbi su hayala wow so soo gis ngeen dañ dee def seen fu nekka yeah GP bi lañ ko jox GP bi mo ko yobu wow si jama ak <laughs> So so leen bëggee any party any occasion post events mo leen fi nekkal ah defaral leen lu nice lu unique macha allah macha allah macha allah.